lu may wax si confinement bi man gëm naa ne confinement Macky Sall mën na ko def waaye balaa mu koy def xam naa ne mënul jàppale ñëpp man moom sama liggéey laay yaakaar muy keneen ak keneen yaakaar yaakaaruñu si état ñu si yaay yaakaar yaakaaruñu si kenn suñu liggéey la ñu yaakaar waaye gëm naa ne Macky Sall bu defee confinement deux semaines une semaine dina gis résultat bu baax man gis naa gis naa loolu man xam naa loolu moom bu ko defee moom dina am. waaye mënul jàppale ñëpp ko yàlla musal mu dem ak jàmm. ñëw ak jàmm ak mboolem jullit mu bàyyi ci jàmm ñépp nekkaat si tey waaw Macky sàll moom mu ngi def lu lépp képp képptalaay kàttanam mais na gëstu ak san bi xam nga jéem a wax gars yi ñu faj ko mu dem mu dem mu dem mu dem mu gars yi nekkaat seen yitte waaw ñëpp nekk si jàmm waaw. waaw loo gis nag si confinement général bi nit ñu bëgg a tëj seen kër yi pour xeex feebar bi quelque temps. waaw non tëj yi moom du yoon moom tëj yi moom du yoon. am na ñuy wax yoon la parce que. tëj bu ñu tamit ñuy bàyyi nit yi di doxantu di tase. ah mais il faut que gars yi génn moom gars yi moom il faut que ñu génn moom vraiment il faut que ñu génn su fekk tëj bi day fekk nga am looy toogaale. Europe ak ñun bokkul. Europe ak Afrique bokkul ñoom am na lu ñu toogaalee. parce que genn wàll gi yëpp fa lay jógee waaw. Europe ak Afrique bokkul. nit ñi moom dañuy génn jox seen soxla moom waaw. mais dul febar bi nit ñi dañuy dé té té té sen ñi dangi tabax kërëm mu égul mu dé n'est-ce pas mm-hmm. avant febar bi ni dangi tabax kërëm égul mu dé waaw loolu yëpp mbirum yalla la yalla mo yor leppam waaw amna ño xamni dinañ fi nek febar bi du len laal mm-hmm. waaw yalla nako yalla defal jamm defal ko mbolam julit febar bi dem ak jamm bayni ci si ak mbolam julit ñëpp nekk ci jàmm. Ah, mais tëj loolu mooy mooy mooy mooy dëgg mooy mooy yoon te loolu mooy temps bi parce que buñ ko deful affaire bi day gën a day gën a day gën a tasaaroo rek di dem léegi buñ tëjee ñëpp seen kër dinañ xam kan feebar bi fu mu nekk ku saqal sa kër ñu ñëw boole la jël la yóbbu bu boobaa dinañ ko mën a faj mais ñëpp bu ñuy dox nii affaire bi day gën a doy waar xoola yëmbal ay ay ay douze yu kenn xamul xam nga affaire bi day gën a aggravé wu ndax sénégalais dafa dëgër bopp ñi ngi nuyoo ñi ngi séddoo café Touba yi ngi naan ñi ngi def lépp franchement parler lépp ñu ngi koy def lu ñuy tere si corona bi koy def nañ confiné ñëpp tëj seen kër te gouvernement bi tamit nañ jàppale néew du doole ji ndax bu ñu confiné nit ñi tëj seen kër ay néew lañ fay jële ndax amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan sénégalais tàmmul dafa am na ñoo xam ne dañuy xëy suba teel dem wuti seen dépense ñëw joxe waat seen biir kër kon bu ñu tëjee nit ñi duñu am lu ñu lekk kon balaa boobu dañ jéem a fexe ba ñëpp am lu ñu toogaale seen biir kër sénégalais bu amee nu mu toogaale seen biir kër dañuy toog ndax ñu jàmm lañ bëgg ak salaam bu ñu deful lool bi moom. waaw léegi moom feebar bi moom suñu borom ñoo ko moo ko wàccee yal na ñu yàlla suturaa rek yàlla jàppale ñu ba feebar bi jóge fi ak jàmm ak salaam parce que nit ñi moom instant yi sonn nañ torop sonn nañ torop bu ñu nee tëj tëj tey tëj bi day metti si nit ñi parce que bu ñu nee tëj toog leen seen kër te mooy loolu nit ñi duñu xam fu ñu jëm dañuy sonn kon nag affaire bi metti na torop waaye yàlla na fi yàlla jëlee te suturaal ñu comme yàlla moo ko wàccee rek. yàlla na fi yàlla jëlee waaw non confinement bi moom d'accord parce que ñun moom ay néew du doole lan quoi dañuy xëy wuti ki nga xamante ni day xëy wuti lu mu gañee mu joxe ko dépasse kooku buñ ko defee confinement loo xamante ni day def ay semaine dina métti trop loolu moom doonu sax loo xamante ni gëm naa ni mën naa nekk dinañ ko proposé nag mais lu gën daal mooy marché yi gën a am doole te nit ñi di fa daje comme nun def jàkka yi quoi ñu def ko loolu moom moo gën a normal que di tëj nit ñi seen biir kër kenn du dem kenn du ñëw Sénégal daal doon réew moo xamante ni développé wul développé koo xamante ni ñëpp mën nañ leen a fekk seen biiri kër di leen jox ñuy lekk quoi. dëgg la dëgg la waaye. waaye kon nag confinement total ce n'est pas la journée mais mu may ñu 2 heures de temps boo xam ne mun nañ dem uti ji mun nañ dem uti ji xam naa 2 heures de temps 3 heures de temps dañ si mën a am dépense yàlla baax na yàlla moom moo yor ñëpp waaye bu defee confinement 2 semaines moom 2 semaines bëri na yàlla baax na xanaa nag boo lebee si boutique bi sax. wala ak état ak mairie ni ñu jappalé Macky Sall lu mu joxe si dante alimentaire yi xam dina dugg koñ yo xamne ño gëna gën mu jox leen man da lool la xam daal. de ñun wuñ ko dé parce que ñun ci lañuy suturlu ci sonu ñuy suturlu ñun bëgguñu ko parce que ñun ci lañuy suturlu buñ ko défé tamit duñu arranger wa waaw dëgg la du leen arrangé mais ngeen gis ne ñu def ko loolu pour après ça ka communautaire yi xaw a wàññeeku dañu sax lancer état bi. waaw loolu mën na nekk bu ci kaw bu ñu dimbalee ñëpp bu ñu dimbalee ñëpp ñëpp nañ moo mën a toog seen kër yi waaye tant que dimbal bi ñëwul kenn du mën a toog. waaw loolu daa am loo xamante ni moo ko njëkk quoi ndaxte xam nga am na marché yoo xamante ni moo ëpp doole Dakar te ni mbooloo ma nga fay daje te ba léegi tëjuñu marché yooyu quoi xam nga kon boog confinement wala ñu ko wax yooyu moo war a njëkk mais ñun daal ñoo ngi lancé état appel boo xamante ni. balaa jël loolu du ko def na jàppale ni doole jox leen loo xamante ni ay dund la ñu man si dund quoi bu boobaa ku toog di nga xam li la toog loo mais fi ne nii ñu toll nii daal loolu jotagul quoi am na loo xamante ni mooy njëkk ok merci